oo ci ku nekk signé ko wane ni jël nañu engagement ngir lépp loo xam ne luy nasaxal jàmm la. ñoom loola duñu ca dox duñu ca wax duñu ca jëf. ñoom ñii di ay régulateurs sociaux tënku ci jàmmi réew mi nu wéyal seeni liggéey di artu képp ku bëgg a yëkkati fitna ci réew mi. <laughs> ayca ñu waxtaanee euh, charte bi nga xam dañu ko taxawal ñoom nitu diine yi ngir nag euh, ñu jële fii wala sax saxal jàmm fii ci Sénégal ban jàngat nga ciy def élage jëm ci euh, cadre unitaire de l'islam li ñu bëgg woo si waay politique yi. lu am solo la. Mm-hmm. ñoom ñoo ko war a def kon bu ñu ko defee seen jaan wàcc nañ cadre uni cadre islamique. Mm-hmm. lu am solo la parce que bépp point boo xam ni tànn nañu ko pour demander ko ñuy def politique day fekk ñu sukkandiku ci wàllu ngëm ci wàllu pas-pas. Eh, dama ci gis ay boroomi xam-xam eh, ku ci mel ni oustaz Jim Dramé nekk chercheur nekk ku ñëpp xam ci wàllu xam-xam bokk itam ci eh, famille diine l'islam ci Sénégal di Saalum Saalum nga xam ni jàng rek la ñu xam ci famille bi mu bokk jiite ay njabootu diine mais du loolu mais li ma xam ci moom ci wàllu xam-xam ci wàllu dal ci wàllu personnalité ci wàllu charisme ak ci wàllu noonu nangoo gëstu mu ngi nekk ifan di gëstu mu bokk ci ma xam depuis 1998 bi ma nekkee woon étudiant département arabe fekk moom ak oustaz Youssouf Seck Youssouf Seck yoo doon présenté journal arabe ci Walfadjri donc ma xam ci ma xam ci moom xam-xam bi mu am fulla bi mu am personalité bi mu am ku mel ni professeur Cheikh Gueye donc ñooñu kenn mënul leen li ñuy wax du dribble ci wàll politique non te kenn feesul seen bët ci buñ la waree recadrer pour recadrer la te kenn mun te fexe ba taqal leen parce que féetewuñu fenn ci wàllu politique donc bu ñu waxee ñoom war na ñu wax bu ñu waxul war nañu wax parce que ay kilifa ñoo fa nekk ñu xam ni réew miy doxee ñu am xam-xam comme ñu nekk ci réew mi am sañ-sañ ci réew mi te am nag indépendance li am liberté itam lool te nekk ay nitu diine dëggantaan ba ñu xam leen donc am naa yaakaar ci ni maa ngi ñaan ci mboolem euh, coalition yi non seulement ñu xaar ba ñu indi leen charte bi mais ñoom sax nañu wane ni ñu intéressé woo ci charte bi pour ñu gaaw leen ko indil ñu signé ko te buñ ci noppee ñu respecté ko xam naa itam ci benn fulla ci ñoom sëñ Saliou sëñ Saliou Guèye mu ngi koy fàttali démb oustaz Diem Dramé ci sama teewaay ma ko ah bu dee kii de amu ci tiitaange mu ni leen euh, ni ngeen di wootee ci wàllu jàmm itam na ngeen ci boole waale ci ñooñu bu amee kenn ku juum ci wàllu déclaration ku juum ci wàllu attaque ay attaque bu ma war a def na ngeen taxaw ni ko li nga def du yoon donte ni ngeen ko koy waxee day nekk façon bu diplomatique mais ni ngeen ko xamal ni yaa tooñ comme ni ko yonente bi waxe woon dimbali sa mbokk bu ñu ko tooñee ak bu tooñee ñu ni ko ku tooñ am doole noo koy dimbalee mu ni da nga ko naan yow yaa tooñ ba mu xam ni moom moo tooñ te moo tax cadre bi am naa ci yaakaar bu baax ni dina am taxawaay bu am solo bu mu mën a taxawee ci wàllu dal wàllu jàmm ci élection yi ñu dégmal maanaam. Ibrahima jamono nga xam ne sunu euh, xalif généraux yi ñoom ñëpp ku si nekk woote na ak dal waaye terewul waaye politique yi tey la ñu gën a mën a dox ci ak wàllu fitna ndax yaakaar nga ne ak euh, euh, charte bi dana am nag ay résultats yu ñuy xaarandi ci moom. en fait ma Mbaye c'est que le problème est bien plus profond mbir mi du question wu Euh, Mambay njiital PDS. Mhm. wala euh, Mansour Diop njiital parti socialiste. Mhm. mais le problème c'est d'abord li ñuy woowee ay militants te liy indi problème bi ci biir militants yi c'est tout simplement parce que dafa am loo xam ne. tàggatewuñu leen ci wàll woowu ndax dafa war a am dans toutes les formations politiques wala képp kuy njiital politiques mën ngaa signer charte bi mais say militants du ñu doxalee li nga li nga signé tout simplement parce que ñu yenn ci ay militants pour ne pas dire une grande majorité euh, naka la ñu war a doonee ay républicains muy maanaam du question dem ànd ak sa leader euh, fu mu dem nga topp ko euh, di wax pour moom di wax ci lépp mi ba ci réseaux sociaux yi ngay fësal sa bopp ne ni man diw moom mooy sama Euh, sama leader mais dans les comportement leader yooyu war nañu fexe ba euh, teg ay mécanismes yoo xamee ni tous les militants ci seen i parti politique wala ci seeni i euh, coalition de parti dinañu sàmmonte ak ñoom li nekk seen vision mais day fekk ñoom seen bopp seen façon wax ak seen façon jëfiñ militant bi mën cee roy yi parce que gis nga bu fekkee da nga teey Euh, di dox ci li nga xam ne moom nga war a dox ci wàllu politique ñu ràññee ni kii de bu ñëwee débat di dee lay indi nga dem ba ci tàggat say militants ba nga xam ne bu ñu demee bay wax wax violence dañ naan notre leader n'est pas violent donc on ne peut pas violent mais day fekk sa leader boobu jàngal la ko mais si le leader il est violent même dans ses propos mais le militant il se dit que kan kii sama njiit moom mooy doxalee nii mhm. man tamit noonu lay doxalee donc nga signé charte wala nga bañ ko signé benn jeexital ci ñoom mhm. donc l'effort qu'il faut faire c'est d'abord à la base mooy fexe ba base bi ànd ak leader politique yooyu